dal leen ak jàmm lu deful waxul lu ay di jàmbat li ñëpp di jàmbat jamono ji mooy coowoo nga xewoon démb ca bëccëgu àllarba gi ginnaaw bi attekat bi dogalee ay daan teg ko ci ndoddab sëriñ daara bi wuyoo ci turu Cheikhouna Gueye ñu gën koo xam ci sëriñ Xaadim Gueye yoon tegoon ko loxo ngir jéng gum doon jëng lenn ci ndongo daara yi mu doon jàngal alxuraan ànd nag moom jàppoon nañu itam ay wayjuru ndongo daara yooyu ngir ndigal gu ñu joxe woon ci mbir munu mel ginnaaw bi ñu jàkkaarloo ak ña bu attekaay bu Louga ci la leen attekat bi dal di teg ay daan waaye daanaka mel na ni daan yooyu mujj na jur ab coowoo ci diggante mbooloo mu takkuma fa teewoon te doon sàkku ñu bàyyi sëriñ Xaadim Gueye mu dellu ca këram ak takk der ya fa woon ngir mbirum sécurité ba daanaka àllarba bu tàng jër lañu nemmeeku ci bëccëgu àllarba ak démb gi jàpp fukki waxtu ak ñaar yu tegal ay simili ca la àttekat ba daldi àddu xamle ne teg nañ ci ndodd sëriñ daara ba woon ab daan ci diir gu toll ci ñaari at yoo xamante ne dana ca tëdd kaso lu tolloog ñaar ci ay weer boobu xibaar tukkee ci àttekat bi mujj na jur njàqare ci ñi nga xamante ne teewoon nañ fa te doon sàkku ñu di bàyyi waak sëriñ Xaadim Géey mu delluwaat nekkoon ngir wane seen ñàkk ànd ci daan yooyu ñu daal di teg seen waay jooju di sëriñ Cheikhouna Gueye tax ñenn ci ñoom ne dañ koy libéré par force loolu mujj indi coowoo ak yuuxu maanaam sax jàmmarloo ci diggante mbooloo mu takku ma fa teewoon ak yenn ci takk der yi ñëwoon ngir kaaraange mbooloo mi riirandoo jubali ca biir tribunal ba takk der ya fa ne newoon buggoon leen a waaye daanaka ñàkk ba ñu ñàggoon mënul woon téye mbooloo mi ndax bari ga ñu bari woon ñu nemmeeku fa jàmmarloo gu métti ci diggante kuréel yooyu lee ak woy takk der ya fa ñëwoon ngir kaaraange gi yëngu-yëngu ba sax mujj na jur ay yàqu-yàqu yu am solo ay nit yu bari am ci ay gaañu gaañu yenn ci ay vitre ñu daldi koy toj lu ëpp ci bunt yi dañu ko dajji daanaka dañu mujjee woo gendarmerie ngi mu indi ay renfort pour ñu mën a tas mbooloo ma fa woon mer gu ñu mer ci dogalub àttekat bi waral na ñu daal di yàq lu bari ci bagaas ya fa nekkoon jëf ju ñu mel nag ñu bari ñawlu nañ ko ci sénégalais yi ànd ak loolu jëwriñu justice bi moom jël na kàddu di àddu ci mbir mi li ci wane naqaram tey sàkku ci yoon ngir mu jël matuwaay yi war ngir ñu teg mbir mi ci yoon képp ku ci bokkoon ñu teg la ay daan te yokku kaaraange képp koo xamante ne way àttekat nga naka noonu moom kilifa googu dem na ba laaj ak di sàkku ci kilifa yoon yi ngir ñu jébbal leen lépp luy nataal wala vidéo bu jëm ci mbir moomu xewoon ca tribunal ba ngir ñu mën cee ràññee képp ku ci bokkoon su ko jaree ñu teg la ay daan mel na ni yoon mi ngi ci tànku saytu ngir xool ñi bokkoon ci mbir mi ana ñan la ana fan la ñu dëkk ngir mën a xool naka la ñuy taxawee ci mbir mi ba lu ni mel dootul amati lu ci mënti am daal xam nañ ne ay du yem ci boppi borom ndax mbir mi day gën a yaatu ndax dañ ci jàpp ay nit euh, tëj leen comme ni ñu tegee daan Serigne Khadim Gueye mi am yoon dafay mujjee bàyyi mbir mi mu sedd lu ci mënti am daan ci ñëwaat ak yenn ci yeneeni xibaar